sabab mooy euh, bés bu mag bu ñuy waajal ci diggante sit ak Papa Sow ku ne xam ne ne taxaw na mais li taxaw ci biti moom mën nga ne taxawul waaw ndax nag pour mu taxaw dëgg mooy foog mu officiel ñëw nañ nag fii nga xam ne mooy CNG pour combat bi ñu régulariser ko bu jàllee nag lu la neex def xam nga def nañ face à face bu njëkk CNG ne bu mu amati. comme combat bu ngeen régulariser tul bu ci kenn def face à face ñu ànd ci ak ñoom ndax waxtaan yi neex borom kër te ñoom lañ dénk léegi nag ñu bëgg bu ñu fi jógee tey promoteur bi foog ñëwoo woo ñu wuy si ko lu mu ñu def loonu def ko loolu moo sabab suñuy jataay tey. waaw xam nga Siteu ba mu ñëwee semaine ba la ñu génn wala bi ci topp moom ñëw na fii CNG ba renouveler na licence am bi ma ñëw indi laa ko Papa Sow moo desoon ndax écurie bu bees bi mu doon bi mu sos. moom it euh, li ko waroon def na ko ba it licence am nekk na en règle loolu moo waral tey ci lañu ñu war a taxaw nag pour mën a promoteur bi jëndoon na licence yàgg na kon ñi ko séq ñëpp daal nekk nañu en règle loolu moo waral euh, tey ñu war a ñëw pour officialiser combat bi. waa xam nga Siteu la ma ko waxoon rek euh, dara mëntula la yomb ci moom mënoo di laaj yenn kase yi ba pare di tànn adversaire loolu wax naa kook moom biir néeg. kon li ko war rek mooy yokk dooleem xam ne dara mënta yomb kon mënoo daalu seetaat lu woyof naan moom laa bëgg a bëreel et beneen bi mooy mënoo soxla Papa Sow yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci munoo soxla Ama Baldé yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci Ama Baldé daan Papa Sow ñu jox la Papa Sow ñu ne risque la kon kay ñu ne bi ngay laaj Ama da ngaa sob dégg nga baax na li ma la mën a tënkal mooy jëluñu combat bi pour daanu buñ ci xalaatoon daanu duñ ko jël xalaat nañu ne dañ cee war a jaar dem witi leneen ba adversaire beneen bi ñu war a jël sax ñu ngi cee xalaat ak def suñuy jàngat waaw bu ñu jógee ci komba bi c'est juste pour won la rek ne la xalaatuñ ci daanu te buñ gëmutoon ne mën nañ cee génn duñ ci dugg donte champion la nag euh, sportif la xam nga ku bëre lu jege ay 30 combat miin nga bés ndaanaan la mbër la mu ñëpp respecte mais daal combat bi ñun am nañ ci yaakaar bu baax te xalaat nañu ne yàlla dinañu ci may waaw xam nga nag Siteu moom ñoom sax léegi xale yi tooñ ma naan yaay papaay tarkindaa yi mais li ma la ma xamal moom toujours ay mbiram day bette moom xam naa ne daal xam indi na fi doo cent franc andi moom lu ne lay indi bii na xaw ma ci lu mu ne nag pour dire vrai pour wax dëgg rek même daal xam naa ne moom toujours mu créé surprise moom beneen affaire la ndax moom lu ko yàlla defal la du hasard yéen ngeen tuddee ko le phénomène xëy na suba mu indi beneen slogan loolu moom xaw ma xama xamunu ma cee wax dara xamaguma ci dara daal. waaw mais xam nga loolu moom xalaatu nit ñi la rek. mais surtout ku ne xam ne ne mbër la moo xamante ne nii bi mu daanee maalaw seeraas bu ngeen fàttali ko demee 2 benn émission ne nañ ko jox Lagros ma ne ko doo ko jël Lagros jamono yi mënoo bëre ak moom. bi mu jógee ci Zarko daf ne ma tafaatin laa jël ma ne ko kon say mbokk dal ci man juste pour loolu fitam ak moom moom xalaatam bàyyi fi benn mbër ma ne boo jëlee tafaatin say mbokk ci moment bii dafa teel. kon moo lay wan ne du Ama balde rek Siteu gëm na ne moom mbër mu ne war naa bëreeg yow moom gëm-gëm boobu la am kon royuñu ay Ama Baldé déedéet toppuñu ko buñ làmb boolee nag dañuy bëreeg moom Ama champion la euh, du hasard mu dem di xëccoo ju roi des arènes kon kooku ne boo sañoon bëreeg moom ndax dafa bokk ci adversaire yi loolu rek la mais du du pour topp ko mais li wértoor daal ku ñu làmb boolee rek matukaay yi war a jël yëpp danañ ko jël di xaar yàlla may ñu ci ndam

loolu nag solution la ci ñëpp war a wit yëf ñëpp la ndax benn bëñ dafa war a fonk te weex ñu bëri dañuy dund làmb mais du ñëpp ko bëgg euh, bi violence bi amee ci àll say ñax jariñu ku ne ngi wax. ba sax man boo see sorti ma def dama naan nañ fàttaliku euh, asp Pikine bi muy dajeeg Casa au moins pour tempérer ñu xam ne violence bi ci nawetaan yi fépp la am mais duñ jël làmb ci rek ne violence moo waral sponsor yi daw loolu dañuy wax rek violence am na ba ci assemblée dañuy xeex ak def lu ne. nañ bàyyi loolu li li am solo nag mooy nañ defaraat toogaay bi xam ne boo ne woon dañuy xeexi kenn du ñëw li muy làmb la sport la nañ ko rafetal tey mbër mi bu la yàqale sa làmb xëy suba liggéey moo xam liggéey bi muy yëngu yow nga xëy def lan kon nañ defaraat entourage bi ñiy entre xale yi képp kuy yàq bul nangu mu jege la ndax làmb nga am bul nangu ñu yàqal la ko loolu conseil la bu ñuy jox ñëpp man même bu dul sama waa kër su ma gisee nit ñi xeex ci tribune dafay am lu ma naqari ndax man damay dund làmb dama ko bëgg man su ma sañoon benn làmb du yàqu bañ naa ko ba ko attaqué làmb ma dal ci sa kaw